tukarrar su fekkee laa dafa baamu te it laa li tawkiidun du jegee ni pour tawkiid illaa ju jëkk ja xanaa kay setti ci gannaaw setti la kon benn muy mufarrax wala du mufarrax fa ma tafriqin su fekkee dafa ànd ak tafriqul amil ni ki maa jaa illaa zaydun illaa bakran illaa amran illaa xaalidan kon da bàyyil bu mënoon ne da defal bi daatit mu gën a teeleer da bàyyil bi daal wala da defal ak taasiira bil aamili liggéeyu aamil ba taasiir jeexital liggéey lañ ci na nga bàyyi liggéey ak aamil ja fii waaxidin ci benn mi mastusniya bi illaa ci ya ñu seeteeg illaa ja kon maa jaa faayil dong la bëgg ndax mu farra la kon jëfam ji mu bëgg te mooy digg rafaa jox ko benn ci ñi nga seeti woon nga ni maa maa qaama illaa zaydun nga ni nag illaa bakran illaa amran illaa xaalidan walaysa muxnin amul lu man remplacer an nas bi si waaxu walis nasabu la dul moom la dul moom moom nasab rek amul lu ko mën remplacer du dëgg maa jaa illaa zaydun illaa bakran illaa amran illaa xaalidan loolu mooy bu fekkee mu farra la maa jaa illaa du mooy mu farra kon taasiru jaa a bàyyi ko ci benn benn faayil la doon wut defal zayd faayilam nga ni maa jaa illaa zaydun yi ci des nag walay sa maa yox nii an nas bi amul lu mën a remplacer nasabam bi maanaam dañ koy nasab rek wa doona tafriq su dul tafriq nag da nga ni maa jaa al qawm ah ma a taqaddumi ànd ak dawlul mustasnayaat yi kon it waxkum atteel nasbal jamii nasab yëpp mustasna fu mu dawloo amul méeg maa dañ koo war a nasab illaa illa nabi yoon a shaafi kooku shaad la boo xam ni waxu passé nañu ko ba noppi bu xasee dawlu mustasna minhu door a dikk dañ ko war a nasab leneen lu am loolu shaad bu ñu dul qiyaas la léegi nag su fekkee na doon a tafriq la ànd ak taqaddum ni ki da nga ni maa jaa illaa zaydan illaa amran illaa bakran al qawm kon nasabal jami dégg nga wan sib na nga nasab li taxiirin ngir seenu mujj suñu mujjee nag nasab leen waaye ci biir nasab gi nag waji andil bi waaxidin benn ci ñoom min ha ci ñoom kama law kaana comme su fa nekkoon doona zaidin dara yokku wu ca na na ci am boo xam ne na nga ko jàppee mel na moom dong la dara yokku wu ca waaye kon it la dul moom nasab ko rek nga ni kon nga seet ni boo nee maa jaa a dégg nga maa jaa al qawmu illaa zaydun illaa bakran illaa amran illaa xaalidan na ci am benn boo xam ni moom dafa fee nekk di badal ci xawm maa darabtu illaa zaydan illaa bakran illaa amran illaa xaalidan yett yu mujj yi da nga leen nasab ak illaa waaye bu jëkk bi nag moom du dëgg maa darabtu li dégg nga alqawma maa darabtu alqawma ah illaa zaydan illaa bakran illaa am kon dëgg li di nasab yëpp li taxiirin aywa nga indi benn nag boo xam ne day mel na bu doon moom bu dee ci bu dee ci misaalu nasab gi baax na su fekkee misaalu rafaa gi nga ni maa jaa al qawmu illaa amrun yi ci des nga ni illaa bakran illaa xaalidan ba mu jeex nga xam ni day mel na bu fi benn nekkoo nit foofu badal nga ko ci de maa jaa al qawmu ah bu la neexeet nasab ko ci listisnaa di waaye nag badal gi dafa gën maa jaa al qawmu illaa zaydan dagan na waaye illaa zaydun moo gënoon waaw lu mu ci mën doon daal soo ko nasabee rafaa gee gënoon soo ko rafaa yi ya ca des da nga leen di nasab soo ko nasabee ya ca des da nga leen di nasab daal mooy na na benn dikk mel na moom dong nga fa ne léegi xamoon nga ni boo ne maa jaa al qawmu illaa zaydun xamoon nga ni dagan na nasab waaye rafaa gee gën muy badal waaw ba tey loo ci mën def daal ya ca des moom dañ koy nasab alal istisnaay rek misaalam lam yafoo mataluñu illam ru'un lu dul aswaay muy badal niki maa faaluhu illaa qalilun badal la ci waaw nga ni illaa aliyan maanaa nasab illaa annahu waqafa ali waqfa rabiata illaa aliyan la bëggoon a wax waaye nag mu ni illaa ali kalam yafu illam ru'un illaa ali maanaa maa jaa'u illaa zaydun illaa bakran illaa amran illaa xaalidan wa xukmuha ateb bi nga nasab fil qasdi ci jublu ca maanaama xukmul awwali mooy ateb bu njëkk ba wute ci badal gi ak nasab gi ci listisna teewut atte bi nag ci maanaa benn la fa in kaana lawwalu daaxilan fa fa xayruhu daaxil wa in kaana xaarijan fa fa qawluhu fa xayruhu xaarij in kaana daaxilan kama ida qulta maa jaa u maa jaa annaasu illaa zaydun kon nit ñi nga génnee ci atteb maji waaye zaydun dugal nga ko ci ya nga nasabit illaa bakaran illaa ñoom itam dugg nañ ci dikk gi du dëgg soo ne jaa a annaasu maanaa boo ne maa jaa annaasu illaa zaydan ya nga nasab ak ya nga rafaa bi nga rafaa ak bi nga nasabee yëpp daal su fekkee bu njëkk ba dafa dugg ci xukumul maji yëpp dikk na su fekkee dafa doon xaarijan an xukumul maji yëpp génn mooy wa xukmuha fil qasdi nag xukmu lawli wa xukmul mansubaati fil qasdi ay fil maana xukmu duxul wal xuruj moo di xukmul mustasna lawal ida daxala daxalat wa ida xaraja xaraja wastasni majruran bi gayrin muaraba mima bi bima bima li mustasna bi illa nusiba wastasni na nga seeti majruran wastasni seetil bi xayrin ak baatu xayr dégg nga wastasni majruran bi xayrin baatu xayr na nga ko seete majruur ndaxte xayru moom lisim la bu dee seeteet day laaf mu kile de nekk boo noon jaa al qawmu xayra zaydin da ngay jar zayd de ndax xayru mu moom dafa bokkut ak illaa illaa xaraf la mun la yorab li arab kon li raab ja ca la muy seeti lay génne waaye nag xayru lisim la du bàyyee li raabam kenn lisim du ñàkk fu la bu duggee ci jumla du dénkaane li raabam wuteeg xaraf aywa yow danga naan su ko defee xayru nag lisim la fi nga ko war a rafaaj raagee koy feeñal wara oha taxkumu fi iraabiha li mu wax ni wala nga ni jaa al qawmu xayra zaydin maa jaa al qawmu xayru zaydin xayru di génne woo ko zayd ngay génne xayru adaat la waaye nag li mu doon doon adaat lépp lisim la te lisim du bàyyee li raabam kenn su ko defee li ngay génne moom du mën a doon lu dul majruur bil idaafa mu araban muy lu ñuy liraabe moom baatu xayru bi maa ci liraab ja nga xam ne nu si ba dañ ko doon askane li mustus lil mustasna bi illaa li mustasnan bi illaa la ñu daan seetee illaa liraab ja nga ko daan jox moo nga xam nga da nga koo rafaa woon pour la mu def ko badal wala da nga koo nasab woon ci listisna liraab jooja rek moom ngay jox xayru mi nga xam ne moo fi adaat léegi waaye moo yor liraabam ndax li muy lisim li ngay seeti du ci am lu dul mudaaf ilayhi la min tamaamil mudaaf fa huwa majruurun laa xayr dégg wali siwan ak wali siwan suwan sawa in siwa ak suwa ak sawa in yett yooyu ñoo fi ne waj al defal li siwan ci seeti booy seeti nga ne jaa al qawmu si aywa waj al defal li siwan ak suwan ak sawa in alal maa li xayrin la ñeel xayru maa jucila la ñu defoon li xayrin ñeel xayr alal asaxi ci li gën a wér xayrul asax mooy lan kooku dafa ne siwa maana zarf makaan la siwa su ko defee nga ni jaa alqawmu siwa zaydin nga xam ni siwa da nga koo nasab mandargam nasabam fataaguñu nattale ci alif wala nga ni suwa zaydin lu dëgg wala nga ni sawa a zaydin kooku nasaba mën na feeñ hamsa la moo ca mujj alif mujj ca awa maa jaa al qawmu li gën a rafet nga def badal nga ni siwa zaydin ñu ni la mandargam rafaam dàmm gu ñu nattale ci alif wala suwa bu dee sawa u nag nga ni maa jaa al qawmu sawa u zaydin kon nag rafaam day feeñ waj al defal li siwan ak suwan ak sawa in maa li xayrin la ñeeloon xayr maa jucila li xayr ci liraab alal asaxi ci li gën a wér xayrul asax nag mooy ni siwaakat zarfu makaan la boo ne siwa zaydin dafa mel ni da nga ni makaana zaydin waxal allah yusallita ala ummati ala ummati aduwan siwa anfusihim mango aduwan min siwa anfusiha min siwa anfusiha maana jar jar siwa ak min min xayri anfusiha waaw kooku min siwa anfusiha ay min xayri anfusiha la bi maana waaw kooku yow dangaa ting wax ja ci digg ba da ngaa bëgg a wax siwaa dana dikk ci geneen anam ñu di ko jar waaw loolu nga bëgg a wax ñu di ko dugal xaraf loolu bokkut ak leen doon wax siwaa kay danañu ko jëfee benn ah dégg nga ana nu mu waxee mu ne a atruku layla laysa bayni wa baynaha siwa laylatin inni idan la sabuur foofu siwa génn na lim doon wax bokkut ak siwa gi na yow boo arrière woon da ngay fekk mu ne la siwa des qad yustaamalu fi gayri listisnaai du dëgg ndax laysa bayni wa baynaha siwa laylatin siwa li si mu layta la fi du siwa ja nga doon wax wala wa ida tubaau karimatun aw tustara fa siwaaka baa'iuha wa anta almushtari siwaaka fii mubtada la fi barabu rafaa la ne kooku yow da nga waroon wax ni wa qad taxruju siwa dégg nga bu la neexeet ni laa taxruju ani listisnaay illa fi darurati shiar loolu moom mën nga ko waaw ma ngoog waaw moom siwa ci boppam dañ koo jar kon du nekkati barabu rafaa ak barabu nasab aywa wastasni naasiban bilayta bilaysa wa xala wa bi ada wa bi yakunu baada la wastasni na nga seetteeg laysa ak xala ak ada ak yakunu yenti fiil yooyu danañu doon fiil setti kon nag jaamit lañu fi ñuy settee de ndax seen maadi du fi dikk seen leneen du fi dikk waaye kon naasiban ngay aji nasab la nga setti ndax bu dee laysa li ngay seeti li si mam xabaram la xabaru laysa dañ koy nasab bu dee xala ak ada li ngay seek maanaam bu dee lay saag laa yakunu li ngay seeti seen xabar la te ñooñu seen xabar dañ ko daan nasab soo nee xalaa ak adaa la li ngay seeti seen mafool bihi la te mafool bihi dañ ko daan nasab dëgg kon nag wastasni seetil ak laysa nga ne jaa alqawmu laysa saydan maa jaa alqawmu laysa saydan ay wala xalaa xalaa saydan wa adaa amran wa bi yakunu laysa laysa jaa alqawmu laa yakunu zaydan laa yakunu jaa i aji dikk ja zaydan waaw kon yooyu de ay fiyan lañu xanaa war nañoo am fayil bu dee ada ak xalaa waaw bu dee laysa ak yakunu war nañoo am lisim ju ñuy rafa ñu ne waaw kon seen lisim ak seen fayil damir mustatir la ñu laaj la kon fu damir ji dellu ah xanaa benn ci ñaari yett yëf de kon damiru faayil ja adaa nëbb laysa nëbb ko yakoonu nëbb laa yakoonu nëbb ko xalaa nëbb ko ma ngi dellu imma fi masdaril fiili jaa al qawmu laysa huwa ay al majiu wala mu dellu ci ismu faayil al munsabik min al fiili laysa ay al al al jaa'i qaama al qawmu laysa ay al qaa'imu nekkut zaydan du dëgg imma fi lmasdari wa imma ala ismi lfaili dégg nga loolu ci damiru fail bi rek la ñu wax amma laysa saydan liggéey nasab maful xabar xabaru laysa la xabaru yakunu la mafoolu bihi xalaak ada la moom boo nee ada saydan loolu nag nan dem waxunu nag fa nga leen di jare kooku dana dikk bu la neexee jare leen ah te it wa xaytu jarra fa huma xarfaani kama huma in nasaba filaani wajurur bi saabiqay yakunu in turit mangoog yaar yi dawlu yakunu mooy xalaak ada su la neexee def leen xarafi jar wajurur jaral bi saabiqay yakunu ci yaar yooyu jiitu yakunu ñu nekk ala annahuma xarfa jarrin shabihaani حرفا جر شبيهان بالزائد فلا متعلق لهما فلا تتعلق بشيء حرف جر زائد نك بحسبك درهم حرف جر ونروك زائد نك خلاق عدا لا تتعلق بشيء كون لين دا جارك مجرور فك مو اجي في برب نل ا ندغم جار بدو زائد دي ان تريد وبعد منصب وانجرار قد يرد وانصب نغلين نصب بعد ما تي غناو ما سو فكيه داغا تي بوله ما ni maa xalaa wala maa ada kon nasab rekk la war a doon moo rafet ni waaye nag goo boobaat wan jiraarun ak jar fe fekk ñu ànd ak maa xad yaridu mën na dikk lu néew ci waxu arab nga dégg ko daal waaw ma ngoog si ba wéy wattuwul jar ak yooyu aywa su ko defee nag nga xam ni eh, maa li nu bëgg a wax daal leeral ni maa xalaak maa ada yooyu dafa am ñu ni nasab dong lay def mu ni waaye lu tuuti daal dégg nañu mu ànd ak eh, yooyu nga ni maa xalaa zaydin wala maa ada zaydin waaye bariwul ah, xalalaahi kooku maama sax dikkul foofu ala kullu shay'in maa xalallaha batilu kooku maami la feeñ defe naa way kile ah, labiit la war a doon eh, labiit ibnu rabiat wa kullu naimin la maxaalata zailu naimuka fi dunya gururun wa xasratun wa anta qariban am maqilika raaxilu way labiit ah, wa su- wa jaruur bi saabiqan yakunu in turid wa wa waqad yaridu ah, wan jiraarun ak jaru qad yaridu mën na dikk baada ma wa baada mansib na nga leen na nga nasab bu ñu àndeeg ma waaye wan jiraarun bu boobaa ak jar ànd ak ñoom it qad yaridu mën na dikk waaye doon lu néew nag maami daal bu dikkee moom xam nga seenu fiil ya day gën a dër seen xarfiya te jar gi seen xarfiya dong mooy anam gi nasab gi seen fiil yaay anam gi maa nag su ci duggee dootu jaadu nu ni xaraf la ah day ñaaw moo tax kon jarga moom du bari dégg nga waaye nag waxay su jarraa fu ñu fu jare fa huma xarfaani xarfay jarrin lañu yoo xam ne du ñu aju fenn kama huma ni nga xamee ni ñoom in nasaba fu ñu fi nasabe fi'laani ñaari fi'al lañu su boobaa nag maa mi man ànd ak ñoom te mu rafet mu ni nag wa ka xalaa ni xalaa mel wa xaasha xaasha ka xalaak adaay ñooyam moom itam eh, mën na doon nasab mën na doon xafat waaye nag wala tasxabu maa du ànd ak maa de ni nga mën ni maa xalaa ak maa ada maa xaasha moom duñu ko wax dégg nga moom xaasha nag yeneen luxaa ngi ci dégg nga bu nu nee du ànd ak maa man nanu foo doxale ba tey ñu ni wa qiila yasxabuha nee ñu am na dana ànd ak moom nettali nañ ci bayit fa amma annaasu maa xaasha qurayshan fa inna nahnu afdaluhum faala nit ñëpp ku ci dul quraysh noo leen gën a rafeti jëf la la bëgg wax day dem maa xaasha ñu ne kon ànd naag maa foofu am na ñu ci nettali lu dul way xadiis usaamatu ahabu naasi ilayya maa xaasha fat fatimata dégg nga ah foofa ab xadis la du way du dara kenn mënu ni lor way la maxaasa fatimata ah muy maxaasa di fin lu setti fatimata ñu nasabe ko te kon ñagantu ni bayt wi shaad la laa yuqaasu alayhi wal xadisu itam laysa min al baab ndax maa xaasa laysa min xaasa aljaamid bi nga xam ne mooy fiilu listisna bal huwa fiilun mutasarrifun fa yuqaalu xaasa fulaanan xaasa yu xaasi xaasa beddi na yu xaasi day beddi maa xaasa fatimata ay maa mayyasaha mastasnaaha kooku dafa ni yoneen nee na fulaanu usaamatu moo ma gënal ci nit ñi foofa rek la kon kooko ni mu net la ñu ni kon foofu la wax jayam nit ka doon riwaaya teg ci ni moo na yonente maa xaasa fatimata seeti wu ca sax fatimata dégguloo kon xaasa ji mutasarrif bokkut ak xaasa bi ci bunt bi loolu la ñuy weddi ni xaasa du ànd ak maa suñu ko déggee ci bayt bi ñu ni kooku shaaz la laa yuqaasu alay suñu ko déggee ci xaas xadis bi ñu ni kooka kat bokkul ak xaasa jooju kii mutasarrif la looloo tax maa ni nga mën a waxee maa maa daraba maa daraba maa qaama noonu nga mel ni maa xaasha ah su doon andi mu daari om nga ni maayu xaashi yi waaw kooku bokkut ak xaasha ji maa xaasha settiwul du dëgg doo ko firee maa xaasha ludul bu dee setti ludul nga koy firee maa boo bu dee mutasarrif bi nag maa xaasha fulaanan mooy beddiwul sax diw nee ñu kooku dafa jublu ni yoneen de nee woon na eh, usaamatu moom a gënal ci nit ñi kooka teg ca ni moom daal settiwul sax faatimatu ak ni mu ko bëggee ñëpp a ko xam du looloo dégg ngeen boobu maanaam ña weddi ñoo ni jooju xaasaa dafa bokkut ak jii nuy wax bayt yi nag ñu ni kooku la asaasullaay loolu mooy mazhabul basriyin ñoom seen qaayida lu ko bëgg a xët ñu ni la daal loolu shaad la laa yuqaasu alayhi ah bu dee xadis léeg-léeg ñu ni marwiyun bil maanaa la wala leneen luñ ca mën a wax daal moo tax fa fa naxwuhum ah moo gën a yomba takk waaye moo gën a bare takalluf naxwul bisri yéen a nag lu ñu dégg xiyaas seen naxwu kenn mënu koo takk waaye moo gën a ñàkk takalluf nee nga wakka xalaa xaasa wala tasxabu ma waqiila wax nañ ci xaasa ci yeneen luxa danañu xadaf alif gu mujj ba ne xaasa dikk na ci alquran waaye nag xaasa jooju boo ko tëggee seeti de xaasa lillahi maanaam sell na ngir yàlla boo ko tëggee waaye ji seeti danañu ne xaasa zaydan wa xaasa danañu asaf alif gu njëkk fa bàyyi gu ñaar xaasa zaydan kon ñetti luxaa ngi ci xaasa bil alifayni wa xaasa bi xadfi thaniya wa xaasa bi xadfi ula faxfadhuma faxfadhuma wattul yooyu ñaari loqa xaasa ak xaasa ay loqa la ci
alxaal ci istilaax wasfun sifa la fadlatun ju nekk fadla du doon umda ci jumla jamuy ànd du ca doon umda wa in kaana laa yasixu xadfuhu fi baad al axyaan doonte yenn tàng dana doon xaal jooxani kenn du ko wasaf mukk bu fa jógee wax ja yàqu waaye loolu attewul ni umda la ci naxu laa yalzamu ci loolu ne foo ko fekk day umda ci wàllu ca jumla ja déedéet naxwu wa maa xalaqtu wa maa xalaqna alsamaa wal arda wa maa baynahuma laacibin laacibin xaal la te xaal la jooxani ku ko xadafoon rek wax ji jëpp yàqu ndax kon day des wa maa xalaqtu sama wa maa xalaq na samawaati wal ard rek yem fa ket kon nag xaal ji sixatul kalaam bi lépp ma ngi aju ci xaal ja kooku kon fadla la tekkiwul ni fadla bu ñu mën a sànni wàcc la daal faw waaye nag du doon musnad du doon musnad ilayhi te loolu ci istilaaxu naxwu kalaam lu ca dul musnad du musnad ilayhi fadla lañ koy tudde muy xaal muy mafool bihi muy mafool maahu muy tamyiz lu mu doon fadla lañu ko tudde yaani laysa umdan umdata muntasib buy nasabu la mufhimu fii xaalin ci wàllu maanaama dafay déggle fii xaali kada soo ne jaa zaydun raakiban raakiban sifa la fadla la dañ ko nasab te déggle na xaalu dafa mel da nga ne fii xaalat fii xaali rukub jaa zaydun raakiban ay fii xaalati rukub loolu la teg kon gën a rafet ci prix wala fal sax nga ni Zeydi dikk na raakiban fekk mu war fekk dafa war waaw ndax xaal bi nga nekke ngay firi misaalam fardan azhabu la ko misaale azhabu damay dem fardan mbir mu ma di aji weet ay mun faridan dégg nga fard nag teewul dàqul li mu ni nay mushtaq maanaam kooku sax ak seegunu ci wa kawnuhu muntaqilan mushtaqa yaglibu lakin laysa mustaxaqa wala mustaxiqa dama commencé ci yooyu yaar baax na wa kawnuhu nekku xaal muntaqilan doon luy toxu maanaam nga xam ni saxu ca faw moo ca kooku moo ëpp yaglibu moo ëpp dégg nga nekk muntaqil bañ a doon sifa laazim nga xam ni mustaqantey mustaqiit nga xam ne doonul jaamit loolu yaxli bu moo ëpp ci xaal waaye laysa mustaxaqan doonul lu aji war faw ci xaal wala laysa mustaxaqan lil xaal faw du aqu aal boo xam ne fokk mustaq lay doon muntaqil waaye nag looloo ci ëpp amma adamu lintiqaal ñëw na fi qawlihim xalaqa allahu zarafata yadayha atwala min rijlayha xalaqallahu zarafata yàlla moo bindi njamala mu badal ca yadayha ñaari loxoom ya ñaari tànki kanam yi maanaam kon mel na na dafa ni xalaqallahu yadayi zarafati ndax badal la ci zarafata fa kaana kal maskooti anhu xalaqallahu zarafata ay xalaqallahu yadayi zarafati xaala kawnihima atwala mbir mu ñuy gën a gudd min rijliha aywa nekk gi tànki kanam yi njamala gën a gudd tànk tànki gannaaw kooku sifat lazim la ba mu juddoo ba ba muy dee da ko yóbbaale wute naag rukkoob ci sayd bi nga ne jaa saydun raakiban mën na am ci heure bi dañ ci heure bi moo tax mu ne nag moo ëpp de waaye doonul faaw ndax lee xaal lañu ko at wala jooju xaal lañu ko leeraab naka noonu mu nekkit mustaq dégg nga waaye laysa mustaxiqan déedéet waqad waqa a jaamidan kama sayadkuru ana dana ko wax léegi wa yaksuru dana bi sirin ci xaal juy tegtale prix dégg nga dana ko wax misaale na ko bihu mud dégg nga muddan bi dirhamin dégg nga fi sirin wa fi mubdi taaw taawulin ak lépp aji feeñ ji taawil mubdi taawulin kii dafa bind mubdi taawilin soo ko defee wasnu bi du baax wa fi mubdi taawulin bila takallufi wa fi mubdi taawul ak ci bépp baat boo xam ni aji feeñ ji taawil la lu yomba taawil nga xam ne mën nañ ko taawil mustaq ci lu jege ni ki misaal yi muy bëgg a tudd bila takalluf ci lu dul nga di ci am benn coono fexe ni ki boo ne bihu jaay ko muddan mbir mu muy mudd bi kasaa ci nangam muddan boobule jaamit la waaye yomb naa taawil jaay ko muddan bi kasaa ay musaaran muy ku ñu përéel ci nangam xaddu xadd sàngam jaay ko musaaran muddan bi kasaa dafa mel da nga ni musaaran lu ñu defal përéel nangam kon muddan jaamit la waaye yomb naa taawil mustaq ña ngi ko taawil musaar yadan bi yadin mbir muy loxoog loxo ba tey dafa tegtale taf defante tafaaul ay mutaqaabidayni jaay ko ko mbir mu muy loxoog loxo ay mutaqaabidayni ngeen di jokkalante ngëbante loxo kon yadan bi yadin it jaamit la waaye yomb naa taawil sax ay mutaqaabidayni naka noonu bu tegtalee tashbih karra song na ca xare ba zayd asadan mbir mu mu nekk di gaynde asad jaamit la waaye yomb naa taawil ay shabihan bil asad moom la ne ay ka asadin lu dem kon yooyu jaamit lañu waaye yomb naa taawil mustaq ndax nag naxwu day jëfandikoo maanaa ni muy jëfandikoo ay alfaaz yii maanaa yiñ ci jublu dong la daal di jox àtte bi wal xaalu in urrifa lafdan faactaqid tankirahu maanan ka waxdaka ijtahid wal xaalu xaal nag nakira la baaxoo xam nga ni ci xudoodi xaal lisim ju ñu nasab juy nakira ju yooyu in urrifa suñ ko maarifaadee daf dan ci wàllu lafz beet mën na nekk waaye faataqit fasal bon tankiirahoo nakiraalam maanan ci wàllu maanaa ni ki misaalam waxdahu jaa zaydun waxdahu ay mutawaxidan ni ki ijtahid farlul waxdaka ay xaala kaw ni ka mutawaxidan kooku kon lu laaf damir dañu daan wax maarifa la ndax damir moo gën a maarifa ci maarifa yi te lu laaf maarifa maarifa la te it dageram mooy dagereb la mu laaf wax dëkk waaye ay mutawaxidaan rek lafzu bi maarifa la waaye maanaa mi i la wa masdarun munakkarun xaalan waxal wayu labitum nu am na foofu saahid waxal wayu labitum nu rabiata mu ni fa arsalaha al iraq walam fa arsal ah fa arsalaha al iraq walam yazudha walam yazudha walam yushfiq ala naghasi ala naghasi dixaali aywa walam yushfiq ala naga naghasi dixaali aywa fa arsalaha mu yebal gëléem ya al iraq masdaru aaraka fo bombante nan raj-rajlo ay mu'tarikatan fa arsalaha mu mu bàyyi gëléem ya dem mu'tarikatan ñu di way kon al iraka jooju yor na al waaye dañ ko tawil munakkar rek danaa mu'tarikatan
wa zaama al baghdadiyun wa yunus wa zaama al baghdadiyun wa yunus annahu yajuzu taarifu al xaal mutlaqan bila ta'wil waaw fa ajaazu waa ñooñu nag waa iraq waa iraq yo al baghdadiyun baghdad waaw ويونس ñoom daganal nañu maarifa al xaal mutlaqan ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا واو.
بلا تأويل loolu nag dafa xilaaf madhabul basriyin ki nga xam ne bu dara desul lu naxwu moom la ñu jiital ñoom xaal dañoo daganalul mu nekk maarifa benn benn yi ci am dañu koy taawil ni nu wax léegi ah, moo tax te al umdatu nag ci ñoom ci wàllu naxwu daal madhabul basriyin a mooy lu ñu tànn bu dee tasrif madhabul kuufiyin la ñu gën a tànn ah wa masdarun munakkarun xaalan yaqa masdar mu ñu nakkiraal dana nekk xaal te xàqu xaal dëgg-dëgg mu doonoon sifa du dëgg te sifa mooy eh, baat bu tegtale maanaa ak borom maanaa ma ni ki raakib ak xasan madrub kon nag loolu lu mu waroon laaj kon masdar warul woon a nekk